Wow. Eh, wow. Wow. Wow. Eh, wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. sama yang Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. dafa am fu mu féete woon am fu mu àggoon écrit waalo ku ci mel ni per Aline Sey yàlla na ko yàlla xaare àjjana moo nekkoon ci écrit bi nekkoon magu écrit bi euh, père Goro Seck wëla réem la xaritam la woon nekkoon ci at Cheikh Mbeng benn booy la woon bu nekkoon ci écrit bi ak benn grand bu ñuy wax Cheikh Sey Cheikh Mbeng Cheikh Sey waaw léegi accident bi ni mu demee woon ndeysaan su ma ko wax sama yaram dafay daw sax billahi wallahi wa taalahi ndax dafay mel ni dama ba tay ba tay ba tay xanaa xam ñu bëri da naan looloo tax man dama am problème mu bopp Xaadim Njaay suñu waxee mu ne dafa am problème mu bopp fekk amuma problème mu bopp de man jullit laa damaa gëm yàlla loo am dama naan yàlla la ba rek mam ma ñoo bokk benn ban benn benn benn benn mu dee sur le coup man boobu accident bi ay nelaw la ma dikkee dama doon nelaw ay gént la ma dikkee bi ma yee bi may wàccee ci oto bi dañ doon xëcc bundu oto bi di ko noddanti pour génn ma ci biir oto bi ki jitu ci man nak di lamb samay poste na def ma don sewé boo koy man ko billaay sawe woo ma lo am ngay wut waaye sawe woo ma barke rasulillah mu ne ma fa ñuk man ko ko xam nga sewé sawe ma pour mom dama dé ndax kima dendal dé la pour mom dama dé muy wane lamb sama poste mu ne la ilaha illallah ay waji waay lu muy def ni mu ne mo dama lay sewé man ko sewé woo ma loo am ngay wut mu ne ma fa ñuk bama fa non la sapor ñëwee dal may gënné ndax bobu dañoo xol ñi dé ñu ñi nga xam ñoo sonu ñu ñëk gënné ñi sonu sonn leen ci trottoir muy man mi ma sonn ñu génn ma teral ma ñee dee ñu bàyyi leen foofu ban génne ñu sëbee ñi nga xam dañoo sonnoon ba noppi ñu génne ñu fofu tëral ñu fofu léegi après mama ba mi ngi woon a xaalis ci poos bi te xaalis boobu après kenn gisaatu ko kon kon xam nga ne ñoo ñëwoon naan dañ may sëwee kon xam nga ni ñoo yóbbu xaalis ba ta mama yàlla da ko moomee foofu ah nit ñi lan seetaat yàlla gis nga léegi accident su amee nit ñi fay njëkk naan dañ lay sëwee am na ci ñoo xam ne ah dinañ dee ëllëg de dinañ dee ëllëg ndax dañu ñëw di làmb sa poos lu mu jekku ci yow yóbbu mm-hmm. te yoon ñuy làmb jël li ñuy am ba pare dinaan fes dem seen yoon duñ fa taxaw naan dangay xaar dañ lay sëwe mm-hmm. kon xam nga ñun sëwewul lu nu am la ñuy wut ay sàcc lañu te di leen dee ëllëg nag mm-hmm. di leen dee ëllëg de waaw si ñu ñëpp doon nelaw oto bi tout ñëpp doon nelaw ñu ñëpp doon nelaw ndax commencement oto bi dafa amoon am ya xam nga làmb ji dafa nekkoon samedi ñu jógee fi àjjuma ci guddi ay deux heures du matin lañ fi jóge fi lañ départ ci buntu police bi ñu ñëpp ñu dal dem légui bi ñu dem ñom fi jóge presque ay 2h du matin nek di animé di waxtaan ci auto bi ba ay bañu passé ngaay dal la gaay yëpp commencé nelaw chauffeur bi nak xamna momi ndaysan mu nelaw chauffeur bi tamit dal di nelaw sila la après euh, ndax am yaa tam amon ci auto ba ci yag ñu dem ba ci biir gaay yi commencé nelaw bi ñu nelawé nak après si la accident bi amé ndax bi ñuy ndar dëkk bi ñuy wax raw fofu suma ma fa saa yu ma demee foofu sama xel dina yar ci raw ba ak sama gars yi ma àndaloon sama xel ci ñoom rek lay dem billahi wallahi wa taalaahi ndax euh, no soo xoolee action bi ni mu demee at ni mu fi déparé at ni mu jóge ma xam ne ah, yàlla rek mooy buur. yow ñoo bokk benn baax bu nu toogoon. lan lan lan boobu Lac de Guiers moo doon pare kombaam at baaboo yi. Balla Gaye 2 Lac de Guiers moo doon pare kombaam ak baaboo yi. Lac de Guiers 1 foofu at Basoka. léegi ñu daal dem léegi moom mu toog ci buntu euh, oto bi ci kanam oto bi la toogoon moom at Pierre Gora Seck oto bi ubbeeku deux fois boobu man maa ngi toog ci ginnaaw sëfoor bi la buntu oto bi ubbeeku deux fois mu tëjaat ko ba see ah liiru xaaral ma ñëw ci yow sax ndax coow dafa bari coow dafa bari xaaral ma ñëw toog foofu sax si yow ndax boobu buntu oto bi ubbeeku na deux fois boobu maa ngi woon toog benn boy bi ñuy wax Cheikh Cheikh Mbeng Cheikh Sey ñoo toogoon man ak moom léegi après boobu grand bi bu mam ma bi ñu jógee foofu daal di ñëw ci man fi ma toog mu toog foofu léegi bi ñu toogee foofu léegi après booy bi booy bi toogoon ci man daal jóge daal dem toog foofu ci kanam oto bi moog Père Gora Seck ma ne ko yow ni nga sobee fu sa morom papa yi toog ngay toog ndeysaan ñu nekk doon di waxtaan comme ñu toog ci banc oto bi nii ñaar dong ñu toog ci benn bokk benn banc di waxtaan di waxtaan di waxtaan di léegi après ba ñu nelawee mu tëdd ma tëdd mu tëdd féetal nii boppam man ma féetale nii sama bopp waaw lo man naa léegi Père Alioune Seye toogul ci kanam sax moom mu ngi toog ci ginnaaw benn père Gora Seck moo toogoon ci kanam ak euh, Cheikh Sey léegi nag xam naa avant accident bi am buntu oto bi dafa ubbeeku ndax Cheikh euh, Cheikh Sey mi toogoon fi ma toogoon dafa daanu ndax buntu oto bi doon ubbeeku mu ubbeeku na deux fois si la mama ñëwee toog ci man léegi ak buntu oto bi mu ubbeekoo xam naa avant oto bi dal ci biis bi euh, buntu oto bi dafa ubbeeku booy bi daanu ndax booy bi loos bi dafa dammoon moom moom loos dafa dammoon ndax deewul sur le coup ndax ki mu toogaloon ki mu bokkul benn place dafa dee sur le coup kon xam su fa toogal mën na dee sur le coup dafa daanoo nag avant boobu nag père Aline Seye nga xam ne ndeysaan nitu yaram la woon mu toog après oto bi koo tànc moom it noonu la demee la gaañoo sur le man nag man ak mamma ñoo bokkoon benn banc ñun ñoo toogoon ci ginnaaw père Aline Seye waaw man dama doon nelaw man sama bopp bi moo moo tojoon at sama loxo bi at sama fii lan tabaxoon waaw moo tax fu ñu jógee rek ñu ne man dama am problème bopp man damaa gëm yàlla lu war am man dara ma ndax gis naa lu ne dara ma man taalibe la damaa gëm yàlla man damaa gëm yàlla ndax suul naa sama papa yàlla ko yàlla xaaree àjjana waaw gis naa leneen ak leneen kon nag lu war am gis taw bi mi mama buñ ko wàccee ci oto bi dañ ko dañ maa tëral nii ndax mënu maa dox ñu tëral ma tëral mama nii ba pare sàng ko dara ji sàng ko su ma ko mënee rek yóoxu dara ji sangu ko ndax bopp bi ni mel dara ji sang ko waaw. waaw euh, sant yàlla rek du ci sant yàlla rek ndax après bi loolu amee euh, alkaati yi ñëw dañuy dajale seen bagage yi ñu ma leen talu may bagage ndax boobu man sama deret deret baa ngi xool may la man talu may bagage ay waay ngir yàlla ak rasulullah yóbbu ma leen ma rawale leen ma ndax borom lamine ya yaakar na ni foko fek mom yaakar na ya ndax yang suma baye bàyyoo na de ndax bobu man ma su ma yëkkatee euh, gis dereet ji dereet ji la ko laan ci matam ñu ma ci wetam dereet ji la ko sama bobu suma leni sama bobu bi fekk bo solo da fa dafa soo dereet di pour man dereet sama dereet la ndeket dereet mam mo ñew ci man fuma ma ni dereet deret bi génn ma ay wa ngir yalla yobul len ben alkati dal ñew di def ay contrôle ma japp ci tank ba sama ben lox ben lox munu waye dama japp tank yobul len ba ci mu arrêté taxi rawala ma ci taxi ba yobuma bu ndar mu yóbbu ma ci hôpital mu ndax bobu sonnon na lol lol lol lool na da wax deug yalla saalitoon na mom deug rek neex yalla salit na mom deug rek neex na yalla na mom waye nak lu wara am la rek sant yalla rek sant yalla ndax alinsei dem gënuma leen ku ci melni père ku bax ku am kóllëre sunu papa la woon sori won na ci ñun lol ku ci melni père Gora Seck ndaysan mama ba nga xamni mo yar la de guerre ah la de guerre 2000 ndaysan moko yar ah ñom Alioune vraiment xalé yépp mo leen yaron wax deug yalla ñun ñi tamit nekkoon ci écurie bi nekk magu écurie bi moom mu nekkoon sunu grand frère noonu la demee.